alhamdulillahi zil qurani daarul quraan di daaray internat ji nekk ci tuuba Daaru Marnaan te dara taxu koo jóg lu dul yàq li lislaam liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim ci alxuraanul karim ñoo fa yéene ànd ak complexe scolaire soxna maam awaloo ngir amal seen conférence fin d'année bi nga xamante ne bii baaxoon nañu ko amal at mu jot ren nag ñu boole ko muy benn ci njiitul Serigne Makhtar Diène waaye atum ren ñu fas ko yenee def dimanche fukki fan ak ñeent ci weeru sulet wi ñu nekk dara jaale ko nag soxna may mënatu mbàkke moom sëriñ tuuba cheikh abdou lahad di jàmbaar ci yoonu murit di soxna soo xam ne royukaay la ci liggéeyal sëriñ tuuba muy directrice bu am waaye soxna soo xamante ne bii wane na aw yoon ci jaamu yàlla ak liggéey ngir tu tànk yi mën koo roy ci jéegoom yu sell yooyu nga xam ne mu ngi koy def nag tax nañu dippee bis bi daañu fa yaatal itam lenn ci ab liggéeyam bañ gën koo mën a xam waaye bis boobu nag mbokk yi ñu ci woo mbooleem yi rawtina taalibe yi waaye waajuru ndongo yi ngir ñu ñëw teewe si xew-xew boobu nga xamante ne bii dimanche lay doon fukki fan ak ñeent ci weeru sulet fii ci tuubaa Daaru Manaan ñu ci woo ñëpp bàyyiwuñ kenn si rawatina waajur ndongo yi 14 heures nag lañu ko fas yéene tàmbali ba tax na ñuy sàkku ci ñëpp mu fekk leen fa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.